jërë ngeen jëf mbokk yi ci ànd bi ngeen ànd ak Sahel Network TV ñu fas yéene indil leen xibaari suba gi li jiitu nag dañuy ñëw ak yéen ci li gën a fës ci boppi xibaar yi. te mooy réewi Gambia kenn la ñu desee ci ki am jàngoro Covid 19 njiiti réew mi muy président Adama boro am na tegg boo xam ne defal na ko lu toll ci ñaari téeméeri junne yi doomu aadama ñi yëngu ci wàllu yaxantu. imam bi nga xamne dañ ko jàppoon mu don wara jité juma bay nañ ko bàyyi hamne président adama baro ba tey ñett ñoo xamne rangal na len ay garat ci tak der bi prime minister bi nek fofu ci rewi euh, britain momen nak dafa amoon jangoro covid 19 jamono ji wirna ba delu wat ci ligeyam mbokk yi taxiiru leen tuuti ñu ñëw ak yeen ci yaatal Coronavirus is a serious and deadly disease affecting the entire world. Gambia continues to register more positive cases. Do not wash your hands with stagnant water. make sure you wash your hands with running water. Avoid social gatherings, naming ceremonies, and weddings. Avoid eating from the same bowl. practice social distancing. To protect yourself and your family and to stop the spread of coronavirus, stay at home. ñu yaatalal leen xibaar yi joriñ bi nga xam ne moom la ñu dénk wàllu wérgu-yaram bi moom nag xamle na ne jile jamono kenn lañ desee ci ñi nga xam ne ñoo am jàngoro bi ñoo wax covid-19 fii ci biir réew mi ki nga xam ne nag moo xam xamle loolu mooy borom kër yi bunti wérgu-yaram bi ñu xamee ko ci docteur Moustapha tey gannaaw bi nga xamee ne am na fukki nit yoo xam ne dañ bàyyi ko woon réew mu ñoo wax senegal ñu beroon leen jamono ji nag loolu la xamle ne ñoo ñiit bàyyi nañ leen ñu ñibbi njiiti réew mi His Excellency muy président Adama Barrow moom na ko wax na ne nguuram dinañ fas yéene teggi lenn ci naamo yi nga xam ne doon nañ ko waroon a fayeeku yaxantukat yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci biir réew mi niki at bi nga xam ne moom la ñu woon ginnaaw muy 2019 ak ndoorteli 2020 bii lim bi nga xam ne nag moom la xamle ne dina teggi naamo ci seen kaw toll na ci ñaari téeméeri junne yi yaxantukat fii ci biir réew mi. police yi bàyyi nañ benn imam boo xam ne daf doon waaj pour julli juma gannaaw bi nga xamee ne euh, foofu lay jiite ci jumaa ji nekk foofu ci Jimpex moom nag dafa mel ni dañ ko boole ki nga xam ne moo fësal loolu mooy ki nga xam ne mooy jëwrin bi yor kàddu police bi ñu xamee ko ci ASP yi moom nag moo wax ne dañ jot bataaxal ne imam bii day dafa bëggoon a taxawal li nga xam ne moom mooy jullit juma si lañ ko jàpp nag yóbbu ko fi nga xam ne foofu la mbaxana nekkee benn gannaaw gi nag biñ ko téyee diiri ñaar fukki waxtu ak ñeneent lañu ko bàyyi mu ñibbi këram bàyyi néggandeku gannaaw bi nga xamee ne nag takk der bi seetaat nañ seen taxawaay fii ci biir réew mi njiiti réew mi nga xam ne moom mooy président Adama Barrow moom nag moom mooy njiiti takkader yi fii ci biir réew mi tabb na ñetti nit ñoo xam ne bokk nañ ci ñi liggéey ci takkader bi fii ci biir réew mi ki ci jiitu mooy colonel Ousmane Gomez nga xam ne moom mooy commander of the Gambia National Army ne takkader gi yëpp moom mooy seen njiit te ba tey rek moom moo nekk commander bu Republican National Guard keneen ki nga xam ne moom moo ci tege moom mooy Colonel Sèye Ndiaye moom it nekk na commanding officer boo xam ne moom moo jiite euh, takkadeer yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci State House bi te it nag war nañoo commencé seeni liggéey ci nim gën a gaawee. fële ca réew yi Angleterre seen prime minister ba ñu xamee ko ci Boris Johnson moom nag jamono ji dañu wax ne dafa amoon jàngoro boobu ñuy wax Covid 19 gannaaw bi nga xamee ne yóbbu woon nañ ko ci lopitaan yi faj ko ba mu wér. gannaaw bi nga xamee ne nag delluwaat na ca ah, liggéeyam moom prime ministre bi mu ngi yëgal askan yi Angleterre ne dañu war a góorgóorlu bu baax a baax ci moytu jàngoro bi nga xam ne moom la ñuy wax Covid 19 bébu mu gën a tasaaroo ci biir réew mi ndax jamono ji bu ñu xayma bakkan yi nga xam ne jël na ko foofu ci réew yi Angleterre war naa toll ci ñaar fukki junne ak benn doomu aadama boo xam ne ñoom ñàkk nañ seen bakkan foofu ca réew yi Angleterre. mbokk yi loolu mooy woon xibaar yi bés bi di bàyyi ko fii ci Sahel Network TV. jërë ngeen jëf ci ànd bu rafet bi ngeen ànd na ñun Bandiawally Mbaye sa Sahel Network TV Banjul